bokki jullit yi bokki taalibe yi ñi nga xam ne noo bokk liggéey bi Cheikh Mouhamadou Bachir mii nga mooy yor baatu jottali gi ak sëñ sëñ Mouhamad loo mii nga xam ne moom lañ dénkoon wattuk dëkk bi ñu ngi nii teew wax ji nag dafa war waaye ku sañoon booy wax wax ji am wax bi wax waxu lislaam waxtu wu ne noo ngi ci mosuñu cee noppi loolu lépp nag mooy nekkal sëriñ bi ndax sëriñ bi moom boolewul ak dara boroom ak yonent bi nga xam ni moo ko jox ndigal mu dem ci loolu ba tudde ba tudd jaamu bu yàlla kii la bi sëñ bi léppam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 wax na musta noppi ngir bëgg gindi nit ñi gindi nit seen borom moom mën leen jëmale seen borom bind na it ba loolu lu ñuy laajte nekku ci li ci des nag gannaaw dogalu sama borom moo xam la muy dogal yoonu kenn nekku ci moo xam li li li li li li war a def moo xam nam koy defe moo xam li tax mu di ko def loolu lépp mu ngi ci yàlla amma jaam ñi nag ñi nga xam ne dañoo topp la lislaam digle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

jullit bu ko def ak sa borom taalib bi sëñ Tuubaa bu ko def yaag ya ya ya ba tey yaag sa borom ndax sëriñ bi mosut a juyoo ak boromam réeruwul ak boromam la borom bëgg rek la borom digle rek moom la digle la borom bëgg moom la digle la borom tere moom la tere.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 jeexalu bundam li mu fi nekk ci loolu rek la nekk la fi nekkee kon nag loolu dëgg la faaw nu tàmbali cosaan cosaan li waaye li ci am solo moo di sëñ Béthio dëgg la ci lislaam la juddu ci ñooñu Sëriñ Tuubaa yi la boole woon boppam rawatina jox bi mu boppam jox jox bi mu boppam sëñ Saal sëñ Saaliwu kon waxoon naa ko njaboot gi muy sëñ Saaliwu ak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 waaw rek moo ci moo ci moo ci war ci seen bi lu bon nag seen bi rek lu bon moom seen bi rek ku teggi ndigalal yàlla teggi ndigalal sëñ Tuubaa wàcc fa bëggu su bëggu suñu borom gi wàcc fa bëggu sëriñ bi gi nun su xamatun ci yow dara kon nanu góorgóorlu soxna Socé fa fa ma jëkkee wax ak moom ca Njaareem ca Tamxarit ga wax na ba àggal wax ci ne ñoom ci ndigal la ñuy wéy ma tontu ko ba ma ko tontu dama ko ne. yaa ko ma ko ma ne am na loo xam soxna si wax léegi moom nee na ci ndigal ngeen li la ñuy ma ne ma ne ko nag ndigal ak tere nag ñoo ànd mosuñu duñ tàggoo laa cee mën booba. bi mu dellusee fii.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 ginnaaw nun ginnaaw jees lisaan amatul jees lisaan bu jees am na loo xam ne bu xewee dañ leen di rey wala ñu fa wala faagaal leen ko ak ak bomb waaye loolu yàlla soppi na jamonoom yàlla soppi na jamonoom loolu loolu loolu nguur gi rek ñoo boobu sañ-sañ te ñoom bokku noog ñoom ak jublu ak doxin ñoom doxin adduna la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 te yàquñu dara ci lim lim nekkoon suñ borom far ko ba ci ba ba ak si fii tey kon moom moomee di sëriñ bi ba mu jóg jëm ci boromam woo nit ñi bëgg leen a gindi jëme nañ seen borom بغي وما جيمل سين سين سين بروم تي لول نك لا ما نك واي تي لوغي توي توي توي توي بلا لا نك لا نكون كان ياخذ سي موم دا ني نيغي سي لا لا دا بلغي مومي بيغي سي لا نكون بلغي كون دا سوبي كوفي ها ني جاد يون وا فتل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 يالله دائما ليبرتي جامي كي مانا كي مانا مش سايرسي في شاد نمر فمل دول ما يجيبوا ليبرتي لو اني خدف لو احنا مل لو يقولوا كن نكو يوغ يالا يوغ بسمن تبا يقولوا كن نكو جي كو وين لو اني خ من من نكو دف لو وين نخ من نكو مل ليبرتي امنا غيناو كن ريتول كن واخ واخ في دس تي واخ جي امول بن جاري كون كاي نيب ليبر نيب ليبر نيو وايي نك خال بي داي في يون واغي في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 jub rek mooy lépp yooyu yëpp di rek la xeet yooyu yëpp yi ñuy gis yëpp njubadi rek la waaw waaw bu ko defee njubadi nag daal la daal lay andil nga sànq sa diine ginnaaw da nga ab jullit ngay woote waaw te yaa ngi ci njubadi da ngay daal di da ngay da ngay da ngay daal di sànq sa diine loolu njubadi loolu lay jëkk andil fekkee ne da nga jëm ci sëñ bi <laughs> boo jëmee <laughs> moom am na fu <laughs>